ñi ñoom ñu ci choix boobu parce que boo xoolee au fond Amadou Ba euh, kan la ñëw n'est-ce ci parti bi tey Macky Sall dafa nekk fin de donc munatul am baat su fekkee 2019 la du demee nii amatul vraiment doole boobu lu mu mënta jël comme dogal rek ñoom mun nañu muñ su fekkee ndombo tànk lañu ñu amoon mun nañu muñ génne sàmm seen dënd mu mel nii ba tey dañuy desandeek moom ginnaaw gi nag la ñu nemmeeku moom moo di ko ca nekk nag dafay wane ne maa gën a yàgg donc ma war a yellool poste rek jiite li nga xamante ne moo di boobee coalition bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi ba tey moom dafa jàpp ne loole nag euh, teguwul fenn amul bopp amul génn lenn rek la ñu bëgg bañ nag bootu ci ginnaaw Amadou Ba moo tax naka ñuy yëkkati yooyee kàddu ñu teewlu ko ba tey moom euh, Bakary Domingo Mané ak Nanko Bagayoko gars yi dem ñoom ñëpp dañu wax euh, APR authentique mooy APR boo xam ne daal buñ ko sàncoon je pense en ñoo taxawoon taxawal mbir mi dañu mer dañu frustré wu et il pense que vraiment APR boobu moom la ñu a delloo fu mu nekkoon loolu moo notion n'est-ce pas d'authenticité par rapport maintenant à l'opportunisme parce que boo xoolee au fond opportunisme yi mooy euh, c'est représenté n'est-ce pas par euh, Amadou Ba Amadou Ba nekkuloon de la première heure parce que boo amee parti yow addition moo la war mais aujourd'hui on se rend compte que Amadou Ba boobu élection législative yi ak locale yi vraiment dañ ko dóor moo tax ñooñu bëgg a sant affaire authentique ils peuvent se demander mais pourquoi ñu jël Amadou Ba alors que koo xam ne la il n'était même pas en mesure de gagner sa commune lu tax ñu jël ko moo tax ñoom la meilleure façon dëggal seen frustration mooy per daara pour sanc encore affaire authentique mu ngi noonu Léopold Tamba bu ñu ñëwaatee ba tey ci coowul APR bi nga xamante ne fi mu toll nii moo lëmbee euh, li di bile coalition ñu gis ne ne euh, bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moo di Bakary Domingo Mané dafa jàpp ne lu nu mel day signifier que ne rek fin de règne bu nguur gi moo waral lu nu mel euh, ci biir coalition bi. waaw xam nga dëkk bu am président de la république mu am ñenn ñoo xam ne ne dafa am yaakaar ci ñoom. Mm-hmm. mu indi leen ba pare jox leen ay euh, ku ci nekk mu am lu mu la takkal maanaam nga doon ministre wala leneen ak leneen mais lu ma gën a remarqué au Sénégal à chaque fois que saay bu ñuy jege élection mhm. ñi nga xam ne ne président moo leen jël teg leen ci wetam dañuy jéem a dañ koy jéem a faxatal parce que mhm. ñu leneen mhm. lu dul maanaam jël fauteuil présidentiel bi pour ñoom président bi wàcc ñoom ñu yéeg mais lu di mel nag président du ko nangoo moo tax di nga gis ne que am na ñu bëri ñoo xam ne ne tey jii euh, maanaam teg nañu si jaaj yi ci suuf dem nañu nee ñu dañuy former seeni i parti bopp mais seen i parti bopp c'est bien mun nañ ko def mais tamit il y a l'élégance dafa am élégance ci euh, démocratie mm-hmm. parce que nit tamit bu la jiitalee ba pare mu may la yenn euh, sañ-sañ yi ba nga xam ne ne nit ñëpp xàmmee la war nga ko mun a delloo njukkal mais au mm-hmm. Sénégal fii delloo njukkal amul mooy maanaam da ma maa xoos dinaa la xoos mooy mm-hmm. maanaam du la may dara mais dinaa wax ci yow loo xam ne ni nit ñi xamuñu ko donc loolu ngay gis ci kii mi élection yi suñu waaje di jege donc je crois savoir ni que un homme politique dafay am lu ñuy wax la bienséance dafay am tamit li nga xam ne kaddu mm-hmm. surtout kaddu dafa am solo mais la plupart du temps loo ci gis maanaam mer ba pare dem di génne yenn mbóot yoo xam ne ni ba nga koy xam waxoo ko woon mhm. mais léegi nga koy wax parce que tout simplement la nga doon yuutu mhm. yootu noonu pour toog ca dañ la ko xañ looloo tax donc il est grand temps les hommes politiques ñu refaire seen trajectoire de mhm. vie seen trajectoire sax au sein de la démocratie parce que la démocratie c'est pour les gens yoo xam ne ne c'est des gens avenants ay nit yoo xam ne ne dëggantaan lenn lu ñuy def yëpp dañ koy def parce que dañuy xool ne que askan baa ngi seen ginnaaw. ñu mhm. am doxin bu am solo. gis nga fi tey ji yenn politique yoo xam ne ne comme Boun Abdallah Dionne ak ñeneen ñoo xam ne ne vraiment soo leen déggee wala ñuy dem di dikk di nga xam ne ne ñii ce sont de grands messieurs mais bugg fi xeexoo bëgg fi indi leneen ak leneen loolu ñoom ci seen tayef la d'accord euh, Fatou Abdou est-ce que ma sanc parti bi war na ma permettre ma nekk candidat est-ce que loolu euh, nekk na loo xamante ne ne war na xel war na koo mën a nangu bu ñu xoolee configuration bu APR waaw Euh, mérite day am mhm. cest dire que aujourd'hui dafa mel ne dañuy dem ci deux APR muy benn APR authentique ak ñi nga xam ne jàpp nañu ne ñoom ñooy les militants de la mhm. première heure ak ñi nga xam ne dañu dabe loolu nag bu amee euh, gis-gis yi dafay wute parce que mhm. dañuy jàpp ne ñoom dañu liggéey sonn ba coono bi daanaka defaru am ci ñoo xam ne dañ ci bëgg a profito maintenant il faut nga xol bu yaatu am dënn bu yaatu pour mën a accepter que peut-être li président de la république Macky Sall wax c'est le choix de la raison nga nangu loolu soo ko nanguwul mooy aujourd'hui frustration bi am ñenn ñi jàpp ñoom ñoo gën a am légitimité parce que ñoo gën a yàq ci parti bi aussi du crime moi je trouve que ne vouloir am quand être candidat kenn mënu ko bañ mhm. et loolu même vitalité démocratique la parce que nañ toll foo xam ne aussi ci parti ci coalition ba ci réew mi képp koo xam ne bëgg am nga sañ-sañ ne da nga bëgg samp sa ndënd pour nekk président de la république du Sénégal parce que jommul kenn kenn ku ci nekk boo jàppee ne am nga xam-xam gi am nga dayoo gi war nga ko mën a nekk mais dafa doyul cest à pour être candidat day fekk également nga am mbooloo. Mhm. boo xamante nañ ànd ak yow. Mhm. yemul également ci localité bi nga nekk parce que am nga ko naam mhm. nag bokk na ci parce que euh, début la. dina la dooleel nga xam ne am nañ ak sa ginnaaw mais il faut nga def le meilleur du territoire il faut nga teg dara ci loxo sénégal yi il faut nga natt sa bopp yow xool ba xam boo demee ci sénégalais yi di nga am benn pourcentage yi même su fekkee ne sax da ngay dem deuxième tour mais nga sortir par la grande porte. Mhm. maanaam siggi au lieu que nga am yenn score yooyu yëpp xam ne samp nañ seen dënn xëy na def nañu. calcul boobu noonu yëpp ba war a dem samp seen ndënd. Mhm. fi ñu jëm nag mooy implosion mënul ñàkk ci coalition Benno Bokk Yaakaar. Mhm. parce que Amadou Ba a été choisi. mais ñeneen ñi nga xam ne tàmbali nañu wax. ne candidat lañ gis nañ leen ñooñu dafa am ñu nekk seen ginnaaw ñoo xam ne également duñ ñu ndaw ci parti bi. Mhm. aujourd'hui dégguñu leen waxuñu mais c'est pas parce que ñi noppi ñëpp dañu ànd ak amadu Ba. Mhm. am na ci ñoo xam ne ñi ngi ànd ak Abdoulaye Daouda Diallo ne pat. am na ci ñu ànd ak Aly Ngouille Ndiaye am na ci ñu ànd ak Mame Boye Diao peut-être fan yi ñu dem yi ñu jëm ñoom ñoo ñuy gën a définiral lan mooy am ci boobu coalition. am na solo Fatou Abdou dañuy àddu bi yoon ci leneen lu soxol nag euh, daal di jotee ci wàllub ndox fii ci Sénégal fii ak 2050 loolee nag la SONES daal di xam ne présenté ni ki jii ci suba lu mu duppee schéma euh, directeur euh, mu mel ni nag daal di nañoo def ab diagnostic maanaam ab xayma ak seetlu ànd ak ceek experts yi nga xamante ne ñoo ŋànk wàllu woowee ci jamono joo xamante ne directeur général bu SONES di Charles Fall mu ngi dalal xel yi jëm ci wàllu liggéey bi ñeel wàllub usine dessalement ndox nee nag mu ngi avancé bu baax a baax loolee nag la daal di xam ne ni ki tey jii ci suba bi ñu doon amal ab lël jëm ci wàllub wane rek schéma directeur bi ci teewaayu kile di Tidiane Diallo ak Madani Marega la woon. teg nañu benn schéma de directeur ngir xool jafe-jafe yi di askan wi di jànkonteel ci wàllum ndox waa SONES ak ay partenaire am taxaw nañu ci mbir mi ngir indi ci saafara ci at yi di ñu commencé tënkoon li ñuy wax schéma directeur mooy li ñuy may gis-gis pour ñu xam lan nga ñu war a def pour fa jàngoro ndox yi kooku il fallait que ñu natt yan soxla la ñu am si ndox pour li nit ñi di naan di jëfandikoo ax yan jumtukaay moo fi am ak fal nañu mën a jëlee ndox moomu. suñu sukkandikoo ci directeur général bu SONES ñu ngi ñu xamal usine de dessalement bi liggéey bi mu ngi avancé bu baax a baax. dessalement bi mu ngi avancé bu baax a baax. loolu bokk na si li nga xam ni moo war a sécuriser. alimentation bi ba 2032. waa agence française de développement fas yéene nañu accompagner initiative bi waa SONES def ngir atteindre objectif yi ñu fixé 2050 te leen rek moo leen tax a jóg mooy askan wi mun a am ndox bu sell te duñ ci sonn. jaajëf Tidiane Diallo dañuy addu ci wàllub napp gi ak lile di sol langue bi nga xamante ne ñoom nag tey jii daal di nañoo yëy yàbbi ci mbir mi muy association ouest africaine jëm ci wàllub développé rek lile di napp gi ñu ngay nag tiré li nga xamante ne moom moo di rek sonnette d'alarme wi maanaam ñu ngay dànkaafu di alerter acteurs yi yëngu ci wàllu wu nu mel daal di wax nag li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub meññee fi jukkee ci géej gi ak yu nu mel appelal daal di amal tey jii foofee nga xamante ne ah, moom moo di ca Mbour daal di regrouper rek bépp képp kuy professionnel buy yëngu ci wàllu secteur bu ni mel ah, ngir nag ñu daal di waxtaane rek jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy jànkoonteel jëm ci wàllu secteur